maa ngi posé ay question te dama bëgg ñu tontu ma ku ne na nga toll rek tontool noonu waaw ah. yéen ñi nga xam ne yéen a ngi doon saaga di menacer di wax lu ne dama leen di laaj ay question nan ngeen def ak alquran ndax jàng ngeen ko bi ngeen ko jàngee ndax mbokkal ngeen ko bi ngeen ko mokkalee ndax tafsir ngeen ko pour xam lan la ndax leetar bu yàlla yónnee la bi ngeen ko tafsiree ndax jëfee ngeen ko bi ngeen ko jëfee ndax sellal ngeen bi ngeen sellalee ndax yàlla nangu na bi yàlla nangoo ndax gërëm na tontu leen question yi bu ngeen ko tontoo ba pare ma laaj leen nag lan la leen yàlla jaral di leen laaj seen bëgg yàlla ndax yegg na ci jaam lor la te doo mën a fay lor ngir bëgg bi nga bëgg yàlla nga xam ne yàlla moo bind jaam bëgg yàlla bu la jaralee saaga jaamab yàlla toroxal jaamab yàlla dóor jaamab yàlla ngir yàlla tooñ nga yàlla yàlla may dégg xaaroon na dafa tooñ Moussa jéggalu Moussa Moussa bañ yàlla seetaan ko ak jàmm bi ba mu pare mu ne ko xam nga lu tax bi mu la jéggaloo jéggaloo ko Moussa ne ko déedéet mu ne simplement parce que bindoo ko man mi ko bind su ma doon baal ma baal comme nag dama la jox doole su ma jaam tooñ la baaloo ko bis ni ki tey suuf si dootul doxati ci ordre benn doomu ma koy téyel suma bopp waaw Cheikh Ahmed Cissé tooñ yàlla ci xàqam ak alquran jéggalu ko yow yaay kan ci yàlla ba taxaw place yàlla di dogal di am looy wax képp ku ngeen dégg mu nekk suma wax di ci wax ak a xeex ak ut lu muy def intérêt moo ko tax a jóg waaye du yàlla te weeru na ci pénc ma ne am na leneen lu muy dox lu mooy yàlla Makhtar Gueye yàgg naa la ko wax man fi may juumee yeggoo fa ba mën maa jubbante yow xam bu bon nga xamoo dara ci yàlla tàgg naa fi yàlla ne yàlla amul kilifa nga ne loolu dafa rëy effectivement amul kilifa ndax kenn matu ko kilifa tagg naa fi yàlla ne amul yar nga ne loolu dafa rëy ku yaru den laa yar te yàlla kenn mënu ko yar limite la yàlla illimité yar la yàlla unlimited la xamoo dara gàtt xam-xam nag ba pare ne da ngay doon défendeuru lislaam ci balmaaq rek ngay mujjee ak juum ak tooñ nii ñi li ngay def deri gor yi bu la ko yàlla jéggalul yomal xiyam yàgg sa mag la di fi ne bokk kër sa doom ji bi mu fi cagatojee ba génn dem góor yi di ko katt ci appartement yi loo wax da nga génn di xolu parce que sa doom la keroog bi nga may fenal ne góor jigéen laa di ma sosal ñu may jàpp keroog la su ma ndey ji ma jur am at ci suuf ñu war koo ñaanal nga jàpp taabu bu yóbbu ci ne man góor jigéen laa te yow mënoo ko waat bu dee góor jigéen laa yow mun nañoo ànd ndax yow dellee juutal yow xam nga loolu bi Latif doon ngër-ngëri Jamra ñu ngi la doon juutal yow Matar Gueye te nga noppi te nga noppi te bàyyi nit ñi yàlla sa réglewul jàmmam yow ma xiyam la leen di xaar te ku ko neex lay jéggal yow ngay jàmm bu manqué amoo xam-xam andal masajida lillahi munoo ko masajida ak sa ngaam yi woon mel ni sili tubaab nga ne da am lay wax su ma daqaaree sa hmm. duulkat nga Makhtar Gueye danga mën a fen mën a sos mën a da mën a duul man bi ma gisee ngay fen ci pénc laa xam ne yow amoo benn cër ci yàlla te doo ko rëccu nit ku baax dafay am sutura yow koo waxal weer ko ci biti billaahi wallaahi tallaahi fi ma gis seex Yérim Seck ci yàlla gisuma la te bët bu set nga doyadal ko di ko fàttali njuumtey doomu aadama moom jigéen la kat yow góor la juutal ku gën a bon Mame Makhtar Gueye maa lay fàttali ne yow ak ànd sàmm jikko yu katt ndeyam yooyu yéen a dajaloo wan nit ñi lan mooy drapeau góor jigéen jàngal ko xale yi lettoo góor jigéen yéen a ko fësal ba nit ñi di ko gëstu ji ba góor jigéen bëri Sénégal yéen a ko def ay kat sa ndey di am looy wax fi naan affaire de góor jigéen adduna maa ngi leen di xamal ne jotewuma ak jullit ñi jotewuma ak alquran jotewuma ak yàlla jotewuma ak administration Mame Matar Gueye la amal problème moom ak organisation doomi xaram beeg Makhtar Sarr bu dëgg cotto ndeyam bi laa amal problème ñi ci des aw mag benn problème ku ci dugg dugaluma la ci oustaz bu fi osé nag ba jël suma tur def vidéo ci man lu la ciy fekk rek xaar encore une fois maa ngi leen di fàttali te di leen dëggalal ne lu ngeen mën ci man katt leen seen cottu ndey ngeen def ko lu ngeen mën ci man rek def leen ko ci zahir mooy lu feeñ ak ci lu nëbb seen plainte yi nag katt ndeyam mag 10 000 doomi xaram yu ngeen doon su ngeen ma tëjee rek Cheikhou Tidiane du wàlliyu man maa oo Alioune Harasimi yóbbante ko ci Cheikhou Tidiane mu garanti ko seen data yaay yéen ñëpp ma leen ëpp sañ-sañ ci yàlla ëpp leen fit mais yéen a ma dàq dul yéen a ma dàq boole du ngeen ay góor Mame Makhtar Gueye yaay duul nga ne ay kilifa diine ay nangam ñoo lay woo yow yaa mën a duul ban kilifa diine moo la yaakaar kilifa diine bu yaakaar Mame Makhtar Gueye amoo cër ci diine ndax fenkat la fenkat bi nga ko yaakaar ñooñu noonu neen ñëw jàkkaarloog man nga dem ci penc mi teg sa minute yi yow yow yow da nga mën a duul te du duul duuluñ harmoniser yow da ngay fen xam ne dangay ngay fen sa association bu kattandeyam bi nga xam ne yëfi kenn nit la nga pare moo tax soo wax jamra sa dënd bi ngay laal allahu akbar body language speaks more than the language itself sa dënd bi ngay joxoñ naan nii jamra parce que jamra amul yow la kan moo def jamra police moral pour muy contrôler diina ji lan mooy Jamra ku ko reconnaître NGO la rek like any other NGO ONG la comme ONG yëpp duul fii di mbéppi mbéppi soo paree di yow lu amul bës bugguloo ko da nga xewi woon ci lii nga bëgg a xewaatee ngay nga ñaanal sa mag Latif Gueye te gëstul fan la nekk te waat naa ko ci jëmmi yàlla soo xamoon fam ne sa itte mooy dem ñaanali waaye du doon jàpp doomi jàmbur yi innocent yi ne da nga leen di tëj man de lu des su ma dund soo ma tëjatee ma bàyyi tarixa tijaan sarab ndeyam nga mënul ci man tatayaay dulkat doom yi kattante dëkk bi dem appartement yi nga am looy wax yow doo rek la sa doom seen kër googu noonu nga xam ne sa maam ju baax ju sell jooju yàlla na yàlla yokku leeram kenn melut ni moom Maodo bëgg kër mu të tubaab tubaab bi di ko ko xañ mu të Maodo sa maam dégg ko xaaj këram ci dégg jox ko yàlla kër googu ngeen kat seen ndey sàggan ba ñu fay jaay yamba di fa def yi fi doomi xaram xam nga ko xam naa ko Sénégal xam nañ yow ñamuloo kaso moo tax ku ne nga bugg koo dugal kaso yow su dee li ngay xeex dalaa dalaa jaral maa ngi lay lancer défi waatal ci yàlla ma waat ci yàlla ñun ñaar ñu dem tëdd ci kaso ku njëkk a yuuxu rek ñu xam ne du góor ku njëkk wax génne leen ma du góor ngay duul man musuñ maa paqueté nga toog ci télé mu ne paquetage dafa métti man doomi buur laa alalu sunu borom laa doom juñ fay laa fu ma dem tedd <laughs> wàcc naan Nigéria xaw kenn bi may dem ay satuka kenn coki Assane Ndour foccun ñooma lebal bii Adja Ndeye Cissé mi bokk ak imaam Cheikh Ndeye ak Baye di suma bàjjen moo ma yóbbu garanti ma ma génnee xar mu ma saraxe mu ne leen suma doom la su fayee ma fay su fayut ma fay li may dama tudd tur dafa am seede wàcc Nigéria aji Ndeye yaama doomi Adja Ndeye moo ma lebal moo ma may 7000 francs noonu laa wàcce bi may ñëw 21 laa indi ci xam-xam bu leer ngay ñaf sa ndey di am looyo man dama di di sa morom nen leen ñu dem yen ñuy joxe ay tabat ak ay alam tara ndey lay këpp benn par benn mënoon naa wax nice te du bokk ak saaga mais dama bugg mu ñaaw rek pour wan la ne wax ju ñaaw mën naa ko rek mais mënoon naa wax intellectuellement bu doon débat xam-xam la mais lii débat jaay doole la réew a koy faj dëkk dóor fayoo ko tas mais mënoon naa wax calmement du convaincre nit ñi te nanga mais nit ñi xam neen ne man dama ju jéggalu na point xam ne ne yow